asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bi wax ji du gudd xanaa ak fàttali rek loo xam ne kenn fàttiwu ko muy ndigal loo xam ni dafa jóge woon ci suñu kilifa bopp di sunu sëriñ di sëñ Saaliw am lu mu bëggoon ci dëkk bi nesiroon ko bëggoon ko ko ci jàppale yàlla dogal mu wàcc bi liggéey fi ëllëg baara nekkee nu nekkoon ca miraas ma ba jotuñu koo taxawal waaye nag bi sëñ Sidi Moxtaar toogee ñu di waxtaan ci ak moom moo wax ma yéene ko yéene ko ñetti yoon ki laa woote woon am ndaje ci kër sëñ Touba woo bokk yépp ñu taxawal lii bañ foo jógee ci suba sa ma dem Poroxaan fekk fa sëñ Muntaxa ne ko sëñ Basiru dafa lëggéey sëñ Touba ci anam ci xam-xam lëggal ko ci pas-pas lëggal ko ci xel mu rafet nu bëgg nag mbooloo mi doxee noonu moo tax mu ñëw ci yow fii sàkku si yow ñaan nga nekk suñu responsable moral mu nangul na ko boole na ko Cheikh Abdou Latif ñu koy doxal li tax nag ma sant ci yàlla mooy bi ma fa bee yi war koo jox sëñ bés mi mu tudd am Basiru di doomi sëñ Sidi Moxtaar moomee nga xam ne sëtu sëñ Baara ba noppi sëtu sëñ Basiru kon damay rafet njortu ci mbir mi am ci xel mu dal bis bii ñu ko yeesale itam mooy 5 septembre bi nga xam ne fi leen jëlee woon sëñ Touba yóbbu ko ngir bañ gum bañoon ak wuute gum woote woon ak tubaab yi ak wéetal gum wéetaloon suñu borom te noonu ci leef moom la ñuy dox kon nag bu fekkee dafa daje dañ ci sant yàlla bu baax 1895 boobu itam bi mu fi jógee ci la sëñ Basiru gën a àdduna muy mbég te sëñ bi wax na sax moom waxoon na ak njabootam li tàmbali sëñ Moudou Moussa ba ci suuf ñëpp ay wàllu lañ waaye nag eh, ci biir géej gi la ko sëñ suñu borom xamal ne ko basranil basir u baax na ibnil basir bi ànd ak ku la moo doon li say kon min akbari awliya illah kon sëñ boo tuddee basiru loolu itam dañ ci ci moom même tombé gi dañ ci dañ ci rafet njor kon nag ñuy ñaan taalibe yëpp ak bokk yëpp ak xarit yëpp ak képp lu baax ñor ak képp koo xam ne dëgg ñor na la nga jàppale sëñ bi suñu liggéey bu diis bii nga xam ni mooy sàmm ndono sëñ Tuubaa yi mooy sàmm patrimoine sëñ Tuubaa te mooy li ko gën a ñor ci kaw suuf du ay tabax waaye li ko gën a ñor mooy defar nit ak sàmm jikko mhm. ba mën nekk responsable mën a nekk nit ku yiw nit kuy defaree bu suñuy wajur sàmmul woon doon li kon fii mu àgg du fi àgg waaye ñoom dañoo toog eh, roy seen baay ba doon sëñ sëñ comme ñoom koo bëgg a doon nag da koy roy rek bu yàggee nga doon moom kon sëñ Bas li ma yenn woon tam diis ci man yenn ku naa ko teg say loxo yàlla yàlla eh, woyofalal yan bi te defal ci nag yàgg ñu ko àndal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci biir réew ak ci bitim réew. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey jii ñoo ngi ci pakk bu am solo pakk bu rëy waaye ci kër sëriñ Hamzatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad eh, sëriñ Hamzatu nag dégg ngeen fi mu daanale day koo xamee ni sëriñ bi rek moo ko ñor ci taalibe yi itam ci lay dox lépp loo xamee ni lu sagal diine la ma nga ca waaye lépp luy sagal cheikhul xaddiim ma nga ca gis nga ko ni mu toppe woon way juróom yooyu cheikh saalihu mbakke waaye magam ya elhaaji mahamadou lamin mbakke moom cheikh mahamadul fadil sëriñ sidi moxtaar ba ci cheikh mahamadul muntaqa di ñaan sun borom yàggal ko fi te ànd ak ci kuréel gi nga xamee ni nag wala daaira bi muy euh, junj mi ngi tudd xuddaamul xaddiim xuddaamul xaddiim na ku dégg tuur wi xam ni firi na lépp mbaa leer na am mbooloo la moo xamee ni euh, ci ñi mu composé bari nañ ay woroomi xam-xam ay kilifa nekk ci biir lu ko tax a jóg mooy sàmm ndonal cheikhul xaddiim ci lépp loo xamee ni jëm na ci xam-xam jëm na ci dëkk bi ak lépp lu laal Cheikhul Khadim ba tax na bis ni ko tey juróomi fan ci weeru septembre deux mille vingt dëppoog yi itam fukki fan ak juróom benn ci weeru tam xarit mille quatre cent quarante bis ne que tey ñoo ngi yëkkati suñ kàddu wax ni mbooloo moo mii mi ngi fi woon naka jekk waaye jugaat na tey salaat ay jéegoom ngir Euh, di bàyyi xel ci képp koo xamee ni am na jenn wax ju muy waxati mel ni luy xaw a xotti wor ma ci Touba wala ci sëriñ Touba ba ci euh, ci ci njànginu dëkk bi ak doxalinu dëkk bi incha allah am nañ ndigal ci Serigne Hamzatu Mbakke mu jëli ko ci Cheikh Mahamadul Muntaqa muy association boo xamee ni itam valable na ci mboolem côté yépp incha allah ñu fas yéene jóg nag. taxawal dox lépp loo xamee ni sàmm ko muy ndolo seexul Khadim ku dégg sama kàddu fii ci biir réew ak ci bitim réew na bàyyi xel bu baax a baax ci mbooloo mi ci num ci mën a ñëwee ak num ci mën a jàppe dara taxu koo jóg lu dul liggéeyal Cheikhul Khadim ci wàllu xam-xam waaye itam ci lépp loo xamee ni mi ngi xotti war ma Cheikhul Khadim kon xam naa du jar ñuy guddal li sëriñ Xamsatu Mbàkke wax leer na waaye dañ doon xamle rek ak di wax ni mbooloo moomu jóg na incha allah dangeen ci amaat yeneen i jataay yu gën a leer ngir am mbooloo la moo xamee ni ubbi na ay buntam woo na ñépp ngir liggéey sol xadim te liggéey sol xadim rek moom mooy li am solo loolu moo ñu fi bàyyi te itam moo ñu tënk kon nag ñoo ngi woo mboole mbokki jullit yëpp mboole mbokki taalibe bi yëpp képp koo xamee ni bëggug Seexul Xaddiim sa bëgg la ñoo ngi lay woo ci loolu ngir ñu ànd defendre waaye euh, xeex waaye itam taxawal aw waxin la taxawal li nga xamee ni mooy njàngaleem Seexul Xaddiim te bu ñëpp àndandoon def ko woon a sayidul mutlaq àdduna bépp dana daal di yomb kon nag ñoo ngi jégalu ci baax a baax euh, ci bépp jamaj boo xamee ni am na ci kàddu yi Euh, ci yéen rek la ñuy waxee waaye di santaat bu baax a baax xam Hamzatu ak ñi nga xamee ni ñoom lañu àndal ñëpp di mbooloo mu bare bari bari bari ma waxoon nañ ji itam euh, ci ñu lim ci ñenn ñi euh, ci ginnaaw sëriñ Hamzatu sëriñ Fallou Fall Mbawor mi ngi fi waaye sëriñ Gànne Mesere fay itam sëriñ Mat Diop Jawbe yore wàllu sécurité bi waaye sëriñ Moustapha Mesere ak ñeneen ak ñeneen ci ay kilifa kon nag ci mbooloo maa ngi noonu di ko yëgle di ci woo ñëpp. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ bi man